damay wote oui heure boo fi indee budget ma wote ko kooku depuis depuis le début douzième législature ba léegi parce que gis nañ ko ci yow wane nga ko li ñu am ak néew ci yow amuñu ko woon kon nag euh, nañu continuer di leen gën a encourager di leen gën a soutenir te ma bëggoon tam vote boobu nga def ko expression boo xam ne day wane ni waratuñoo wax waxu prime waratuñoo wax waxu logement waratuñoo wax waraxu mauvaise condition ñu mettre leen dans de bonnes conditions parce que mag nag lu ko jógloo waxloo ko ñun sport bi moom la ñuy Et je l'ai dit ministre des finances directeur du budget maa ngi la koy wax bu mu am ponction ponction au niveau du sport monsieur le ministre ma une commission am yaakaar ci loo ma dig moo réhabilitation stade Bambey man lu Je mën def naa de ci bi may maire projecteur a gën a jafe xale yi dañuy football guddi euh, nga bëggoon ma encouragé dig ma réflexion bi bi xale yi ne dañuy marche fekk man rendre naa leen compte ba pare man nag du ma topp xale ba mu def loo ma lu sama jikko dama am principe d'accord ma ci te wax naa leen ko parce que mënuloo di kilifa dig ma ni ma dinañ ko réhabilité ba pare ma ñëw rendre leen compte ba pare ñu door yi décider naan dañuy marche loolu day niroog nag day am caractère politique te man bokk ma ak yéen parti xaw ma nag seen parti la xewe wala fan la xewe mais dama la koy wax léegi ndaxte weddi du ragal dindi tuuma la wante li ma ci jaaxal mooy dama ko gisul ci perspective bu 2020 te bëgguma itam la nga ma digoon ma dellu ci gannaaw ndax man Bambey ci boppam mooy sama parité am xam nañ sama engagement ci yow te itam dama ko mën a expliquer bu baax a baax De me argumenter pour que je baax ni ma koy devant l'opinion et devant mes collègues